spécial ndewenal la ñu koy woyal ba léegi comme nañ leen ko diggee woon suñu mbokk internet yi nga xam ne yéen a safoo di seetaan Dakar Buzz fii ci Sénégal rawatina nag ña nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñu ngi nekk ak beneen daanaan boo xam ne kenn du ko présenté ci parcours am ci liggéeyam ci tey gi nga xam ne tey na ko ci milieu bi mu nekk def na ci loo xam ne macha allah képp koo xam ne rek bokk na ak moom milieu bi mi ngi koy bàyyi xel képp suñuy naa la di la ziar di la déwanal di la baalu àq. fay naa la bu baax kontaan ci seen euh, teewaay di nuyu internetu euh, Dakar Buzz yëpp di wax à tout le monde képp koo xam ne yaa ngi seetaan waxtu wi vidéo bi mbégte laay am ngir recevoir leen sama kër di wax ñëpp déwénati yàlla na yàlla jégal ñëpp boole ñu baal euh, daal di fi wis xéwal gu bari saawaan baawaan fii ak àdduna bi yëpp bu ko defee ñu nekk ci jàmm yàlla jëlee fi mbas mi ci kàttanu yàlla daraja yonent bi sallallahu alayhi amin yàlla na yàlla nangu ñaan comme ni nga koy waxee léegi dañoo nekk ci période mbas mi ñu gis ne nag sax ni ñu koy waxee troisième vague ah, mu ngi waaj ñëwaat ci tabaski ji noo dundee tabaski yee ko covid bi ni ñu daan defee defee tuñ ko ni ñu naan ziyaare dem leen beeg mbokk yeeg yooyu dafa xaw a am tuuti changement noo ko dundee waaw àdduna bi moom moo changé àdduna bi yëpp la ndax nag euh, mbas moom kenn du ko prévoir mbiru suñu borom la duñ ne guléet yàgg naa am ci àdduna mais bii tournure bi mu jël dafa doy waar ndax bu demee ba ñu naan jeex na rek ñu indiwaat yeneen ay variant yu demee noonu waaye ànd ak lu mu munti doon rek nit ku nekk da ngay adapté wu ci situation euh, bi mu la fekk gannaaw du ñun ñoo amee dogal yàlla mooy dogal kon lu mu dogal rek dañuy jéem a wu ci un dundee mooy saafonte ah jegente nekk ci jàmm nekk ci salaam ah société bi nga xam ne ci la ñu nekk moom société générosité la ak partage donc dafay compliqué pour li nga xam ne moom moo di euh, euh, corona bi pour éviter ko surtout variant bi ñuy wax ne bu euh, bu bees bi la muy delta ak yeneen yi dafay xaw a compliqué ànd ak lu mu mun ti doon rek kenn ku nekk nga moytu ah def geste barrière yi euh, ba pare nag euh, di utiliser gel wala di raxasu loolu moom yaakaar naa ne du ma ko wax nit ñi ndax Sénégal kenn dofu fi ñëpp xam nañ li ñu war a def xanaa dañ naan répétition rek du yàq dara day tax rek benn nit sax bu ci changé mu mën a am solo ànd ak lu mu munti doon daal tabaski bu spécial la boo xamante ne bii suñu tamit ñoom la seen loxo jotul seen diggu ginnaaw ndax Sénégal métti na lool tar na lool euh, dañ koy dund ndax Sénégal gii la ñu nekk c'est très compliqué yàlla na yàlla may kenn ku nekk euh, dooley poos waaye ak nag li nga xam ne moo jiitu lépp muy santé et que déwén incha allah ñu tal ko fekke ko te mu fekk ñu euh, ñu génn ci lépp lu jëm ci wàllu Covid. yàlla nangu ñaan comme ni ñu ko waxee rek ba déwén fekk ñu daal di ciy génn mën a rek nekkaat ci suñuy activité comme ni ñu ko yàgg di ko defee alors euh, keps xam nañ la ci wàllum média ci wàllum télé ak yooyu mais ñu bari wax nañu keps dafa fay ndax émission am sax dañ ko jël def ko guddi lu tax loolu da ngeen di déclencher yi ngay def yëpp jaar naa ci ba ñu déclencher ba taal caméra. si tànk lañu aw. <laughs> nga génn fi gis nga nag man dafa am benn notion boo xam ne Sénégal ñi koy utiliser dafa dañu war a bàyyi loolu ay diw dafa fay ak dafa tàkk ak kuy fay ak kuy tàkk chaque jour ma wax leen ko. quand même nag numéro zéro sama première émission télé c'était en 2003 2003 ba léegi ñaata at la. xale bu fi juddu woon yaa ngi doxi soxla yaa ngi jàngi wala bu doon keneen la yaa ngi sëyi ça fait plus de 17 ngay liggéey li ngay liggéey def li nga war a def chaque jour ma répété ko jamono bu nekk ak la cee xew jamono bu nekk renouvellement générationnel day am mënumaa nekk 2003 ba léegi di def émission nekkoon fi man cundum ca jamono yooyu man cundum la woon nekk première animatrice su euh, euh, première télé chaine de télévision privée bu Sénégal ba pare nag continuer xanaa kon bu boobaa dañ may suuli sax du ma jég loolu mënul nekk c'est impossible ay man bi may dugg ci métier bi ma def bi ma nekkee xale laa ko choisir euh, ñu may woowee yaa ma télé ma ni génn télé laa bëgg di seetaan ñoom Soxna Dieng di seetaan ñoom euh, keneen ki ndeysaan euh, Elisabeth Ndiaye ñuy def journal may toog di ko seetaan du ma rate télé télé moo nekkoon sama passion dama judd mu nekk sama ADN ma bëgg ko lool et je me suis donné les moyens de le faire ma jàngi ba ma waree jàngi dem defi formation à l'ISIC institut euh, supérieur de sciences de l'information et de la communication bi ma amee sama bag ba pare laa dem bac littéraire laa am dem inscrire kon xam nga kooku loolu li mu bëgg soo bëggee dara euh, euh, taxaw ci mu nekk passion mu dëggu yàlla sunu borom jàppale ndax moom mooy àggali ma dem ba ma demee téeméeri nit a fa nekkoon ñu def casting xool ma tànn ma ne ma yow la ma def numéro zéro wu émission c'était en 2003 bi ma ci nekkee tamit ba léegi maa ngi liggéey ci télé waaye li ma ci def defe naa mi ngi tege ba léegi def naa fi lu ne nag ci wàllu télé euh, ba noppi nag àdduna nag jamono bu nekk ak la cay xew xam nga man yàlla sunu borom defaluma ma ko lu tax mu fekk téeméeri jigéen bëgg a génn ci télé ñu ne ma yow la yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci lu ko neex ci jaamam terewul euh, lam boo ma joxoon micro léegi ma boot juróomi jigéen di daw ñoom boo ma joxoon téeméeri góor jox ma micro may daw ñoom ndax li may wax tubaarkàlla macha allah nag euh, modestie mise à part parce que man sax bëgguma di di waxee noonu damaa damaa taalibe yooyu loolu daal ah, ku ne xam nga sa bopp tamit la lii man la kii maam mën maa mën nii laa mel nii laa mel moom jarta def boo yàggee di jëf rek nit ñi dinañ xam nii nga mel kenn mënu la dindi sama tur ci histoire audiovisuel u Sénégal ba mu méttee laa fi toog bi àll bi ne lang kenn ñemewu fi laa xuus jàll mu métti lool nag ba tax tey ku nekk ñeme am fitu yore micro nag am na lu ma ci joué ku nekk boo toogee ci télé ne ay habillé par wala ay coiffé par man mii la modestie mise à part nag bugguma sax ñu naan kii day tagg boppam mais des fois nag il faut fay-fay gi bu métti da ngay wax nag yow yaay kan ak fi nga jaar euh, te li gën a am solo mooy euh, constance bi ma àndal ci liggéey bi te ba tey jii nag wax dëgg yàlla yaakaar naa ne maa ngi sàmm sama image déggu leen ma ci lu ñaaw gisu leen ma ci ñaaw gisu leen ma fenn tubaarkàlla macha allah euh, ma laal bant fii touché ko parce que Sénégal dafa doy waar <laughs> te nag euh, wax dëgg bi ma fi nekk kenn nekku fi bunt yëpp doon ubbeeku gis naa lu ne liggéey naa ba président de la république dëkk woo ma ne ma ndax xam nga lu ma lay doyee ma ne ko non non mu ne juste pour féliciter la loolu histoire bu nekk ku ne toog naa ak yow lu ne wax naa kook yow lu ne liggéey naa ko passion la donc euh, am na lu ma fi def am na tam renouvellement génération yu bees yéen yéen a ngi ñëw tam da ngeen di def rek ñu àndandoo ci waaye nag euh, ku ne dese na ay kale nag màgget bu ne dese nga ay ñeleju te nag euh, je suis encore la en pleine possession de toutes mes facultés macha allahu taala li ma mën xam naa ko te sénégalais xam nañ ko kon nag fay bi moom wax boobu nañ ko bàyyi te wax boobu bii jungoone moo ko fi génne waaw ndax lu ñu wax mu naan diw dafa fay diw dafa tàkk sama rakk jooju dafa yabaate moom xam nga ko <laughs> ay diw dafa fay jël sama sama xarit la nag wax dëgg yàlla am j'ai rien à lui mais elle a été parce que nit ki boo jëlee benn mot teg ko ci moom rek euh, da nga koy étiqueté parce que jël photo nit ne ko gàng ci télé teg ko naan kii dafa fay te yow ki ngay wax naan dafa fay moo liggéey tey ba nga mën a toog ci télé ba di fa daagu kon boo ko joxul àllarba bu ko xas kii fay ak kii tàkk yàlla rek ko ko xam man nag fexe naa ba nekk ci xolu yenn sénégalais yi unanimité nag kenn amu ko li ma mën maa ngi koy mën di sargal di gërëm sénégalais yi nga xam ne ñu ngi may bëgg ba léegi bëgg ba tey nag émission bu ñu ko yóbboo guddi bu ñu ko yóbboo 6 heures du matin maa ngi liggéey sama liggéey maa ngi def li ma am yore sama contrat à durée indéterminée bu deer bi dee ma liggéey ñu fay ma kon nag 2003 euh, ba tey mënu fee nekk nag di di bomb man rek il faut mu am ñeneen ñi da ngay xajal ñeneen ñi nag ñu ñëw waaw leer na comme ni nga ko waxee rek macha allah sénégalais yi bëgg nañ la te li tax ñu bëgg la yow yaa ko liggéey ndax ku nekk fa ngay bay sawaar ci foofu rek nga ñu mën a xamee kon fay-fay amul comme ni nga ko waxee daal da bay sawaar bu keneen ku ci topp rek bu ñëwee way bay si animateur wala animatrice bi nekk au top jamono bu nekk ak woykat wala leneen bi nekk au top ci domaine yëpp gis nga nit da ngay gëm yàlla subhanahu wa taala nee naa la ci téeméeri jigéen la ma yàlla suñu borom fekk seppi ma ñuy def casting ñu ne ma yow la waaw man ku gërëmul yàlla nooy def damay sant sunu borom bu baax te xam ne moom rek moo fi ne kenn du moom sunu borom rabul sama waati wal ardi teral na ma te defal na ma loo xamante ne macha allah macha allah j'ai pas à me te ba tey nag boo ma joxee émission wala nga jox ma rek ne ma defal concept man émission du ñëw toog rek yore micro di wax damay nekk ci conception bi élaboration bi ba ci diffusion bi lépp dama ciy nekk donc man euh, xam naa nu ñuy liggéeyee tele xam naa lan mooy tele dafa nekk sama ADN jamono bu nekk nag ak la cee xew waaye ku ne xam nga kan mooy kan waaw leer na keps nekkoon nga 2S liggéey fa liggéey bu am solo macha allah yaa ngi TFM tamit di continuer euh, ci lancé bi nga xam ne moom nga moom nga nekkoon ñu la ci félicité tey jii am na ñu bari tey jii euh, bu ñu toogee am fitu def émission wala ñu dugg ci euh, télé c'est grâce à yow parce gis nañu liggéey bu am solo bi nga xam ne nag def nga ko ci milieu audiovisuel bi fan yi gis nañu coow diggante El Hadj Ndiaye ak ki nga xam ne moom mooy déedéet xam nga nag xam nga tax ma la koy laaj kaay ma wax la du déedéet du ma si génn parce que xam nga loolu tax wax musta am def comme wax nga ko léegi wax musta am ñu ne keps wax na lu ñaaw wala def na ci lu ñaaw moo tax ma bëgg nga rafetal ci sénégalais rek ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sa kilifa la nga jaar nga fee jaar nga fii coow yi noo ma ko ñëwaatal reformuler sa ma wax mooy keps ma ne nekkoon nga 2 di fa liggéey liggéey baam am solo ñëpp di ko seede man mi ma koy seede nga demaat TFM di ko fa def macha allah nee naa tey ku am fit sax toog def émission yow c'est grâce à yow parce que gis nañ liggéey bi zéro faute macha allah te yàlla buñ la dégg ci dara lu ñaaw. waaw mais li may dugal nii mooy diggante sàccum fréquence ci TFM ak 2S noo ko dundee. TFM nga nekk nag nii de. waaw TFM laa nekk loolu. lañu jiiñ ne dañoo sàcc fréquence. kaay ma wax la ñaari moom gis nga nit doo nekk ci gaal di sauver sa mbuus yow bëgg bàyyi gaal gi mu gis na nit boo nekkee ci dara da nga koy dëggal ba mu mat TFM laa nekk euh, appartenance à un groupe dafa am importance TFM laa nekk et je l'assume et j'en suis fière position bu moo fa mën a occuper nag lu ma fa mën a am TFM laa nekk muy groupe Futurs Médias di fa liggéeyee am fa contrat à dure indéterminée muy CDI donc euh, TFM gi ma nekk euh, ki nga xam ne moom moo ko sos li ko ñor rek mooy emploi des jeunes employé ay jeunes commencé ci zéro ba jëm tey fi mu egg man duma tagg kenn du ma ne kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma la mosu maa gis ma tagg kenn damay wax sama àqulaay taala li tax may waxal ma koy waxal lu baax mooy que euh, Sénégal nit juddu na fi self made man dafa am solo lu coow li mën a bari lu wax ji mën a bari nit la koo xam ne il est parti de rien zéro la Youssou Ndour commencé ba tey mu teg industrie boo xamante ne weer bu dee bu ne kenn ku ne yaa ngi cey jëriñoo te ñamuy fay itam ña ngay am lu ñuy jël di ko jox ñeneen ñu ciy dund kon loolu rek dafa baax ci Sénégal benn ki nga xam ne falaa jóge tam muy El Hadj Ndiaye muy nit ku baax koo xamante ne moom it moo xàllal yoon bi njëkk a jox fit xale ñun on était très très jeune li nga doon gis mooy RTS xale daaw jox xale yi ñuy nekk ci kanam ñun dañoo ñëw ñu jox ñu bàyyi ñoog suñu liberté nag ñu def lu ñu neex créativité bi gën a dox kon moom itam c'est un doomu Sénégal la juddoo ci réew mi moom itam dem Suisse ba egsi fii nga xam ne fi la egsi teg studio 2000 liggéey li mu liggéey moom itam doomu Sénégal la boo xam ne amal na njëriñ Sénégal kon nag mbirum ay euh, li nga wax noonu. du ma bi du ci sax jàll du sama domaine maîtriser wu ma ko. liggéey moom ma yóbbu ci télé ba suñ ma jonee kaay liggéey ma ñëw liggéey man nag benn yoon laay liggéey ci semaine bi xam nga loolu dafa neex benn yoon laay liggéey ci semaine bi buñ ma nee kaay liggéey ma ñëw liggéey su ma liggéeyul maa ngi sama kër toog wala ma nekk sama yeneen activité euh, donc je suis très très mal placée pour naan lii wala laa duma ci wax xaw ma tenants yi xaw ma aboutissants yi mais li ma xam ba xam ko daal mooy Youssou Ndour nit ku baax la sénégalais la boo xamante ne bii doomu Sénégal la te il est parti de zéro ñëw ba fi nga xam ne fi la si conviction politique mag li muy def personnellement kooku concerné wu ma man moom la concerné li ma mën a wax daal pour généraliser mooy que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañ ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lañu te man damay yàgg di dégg ñu naan Sénégal dafa am ñu fi nekk di yore puso di nas te du problème bii rek moom moo tax Sénégal yëf yi fi bëgg a ñaaw dafa bëri torop waa te du ñu gis kuy intervenir pour defar jikko yi kenn ku ne am nga sikk boo xam ne bu ñu la ko waxaloon tey ji mu doy waar ay nit kese la ñu matuñu plaider lu ma kenn waxaluma kenn ndax fekkewu ma gisuma nekkuma administration nekkuma fenn mooy li ma mën a wax daal Youssou Ndour nit ku baax la Alaaji Njaay nit ku baax la li ñu mën a def pour Sénégal jëm kanam ñu wàññi coow fexe ba ci Afrique jéem a avancé Sénégal génn cap bii mu nekk dëkk bi dafa métti soxlawuñu ay yaama ne mani la yéeg tribunal wàcc dem ñëw joxal jóob indil loolu amalul njëriñ Sénégal man liggéey naa deux s maa ngi liggéey TFM kon je bien placé pour wax ci mais li ma mën a wax mooy duma wax ci lu ma fekkewul waxloo loo fekkewul day indi naa fekk mais li ma mën a wax mooy Sénégal nañu euh, gën a yéenante jàmm nañu gën a rafetal jikko yi nañu gën a bàyyi defante bi parce que jëmalewul am réew kanam ñépp a ngi dem dalay lay tardeel wa coow day tojalaate baaxul day tojal day delloo ginnaaw baaxul te booy xool ñiy coow ñépp ay nit ñu baax lañu ndax nit ku baax mooy mën a dem meneen réew am lu mu fa samp mu bàyyi ko fa ñëw dëkkam toog fi ay nit di liggéey di ci jëriñu Alaaji Njaay def na ko Youssou Ndour def na ko te Alaaji Njaay kenn gënu ko mook jabaram muy mariyem Njaay di sama yaay di sama xarit doomam yi samay xarit lañ ay nit yu baax lañu kon fu jàmm xaj jàmm fa am mais nag nañu bàyyi ñaaree bu coow amee ñu koy gën a xam nañ seet nuñ ko fayee ñu régler ko à l'amiable wala tamit bu fekkee ne daa am fu mu war a dem fa mu dem ñu bàyyi dëkk bi dëkk yoon la lu war xew lu war a xew-xew ci mais man mii xale bu jigéen bi dooma dugal dugguma ci loolu nekkuma ci administration liggéeyuma ci xam naa ne daal Youssou Ndour nit ku baax la Alaaji Njaay nit ku baax la kenn du ma yóbbu waaw kay waaw kay waaw kay léegi sa bato gaaw na xaw ma sa wax ji wàññi ko yooyu ku ko moom ah, doo ko laaj ki ko way ah, way nekk ak yow bu ma ko gisoon laaj ko ma toogoon nag moom nii laaj yow ngay journaliste bu ma doo ko wëri defi interview dem seeti ko xam nga fu ne nii li ne naan boo dem ci yàlla dajak yonent bi da ngay wàññeeku gis naa naa la wax ñaar nag fii may wax ak yow nii nañu bàyyi interprété moom ngay xaar bu mu génn ne la bi kii laa ko attribué. mais nga way bi way bi neex na bu baax déglu naa ko ci ñi ko ñëkk déglu laa bëgg. du way lu neexul du woy lu neexul ah waaye yow ku tëgg ci néegam fent woyam fekkew ma koy fent xaw ma lu ci xew nga bëgg ma neen lii nag mooy nettali sa gént moroom tey laa waaru nag lu ma ci xam mbay <laughs> ah dugal nag. torop du way lu neexul nag. gis nga nag nit ki man domaine bi ma nekk damay rendre hommage euh, la dimension artistique de mooy que. ah Youssou Ndour nag loo ko contre contre xam ne moo mën a way waaw moo mën a way moo mën a fent nag lu nag way na ko ba ci bato bi way na woyaay yooyu sax way na ay jooy way na ay xale way na lépp amul lu mu wayul ndaanaan la ci ndaanaan yi te redoone na blason wu Sénégal image wu Sénégal yóbbu na ko fu ne way na way wi am na waxu Obama te bu Obama ñëwee moom la taxawal waaw yooyu dafa jar di fàttali baax na ci waaye way wi moom ka ko fent moom nga koy dem laaj waaye du man ñu ñu jël rek boo ko gisee ne Ngoné Saliou soxla na la pour benn incha allah jàppale ñu boo ko bëggee sax bëgg naa ko kay day day yomb lool te xam nga li nit ñi xamul mooy que xam naa am nañu ko xam sax gis nga mm, industrie musique bu ñu ko mënee duppee noonu dafa mës a am ay tëgge dafa mës a am euh, man sama maam laa daan waxtaanal yàlla na ko yàlla yërëm ki ñuy wax naka Badara Mbaye Kaba ak Laay Mbuub noonu la woon Youssou nduur ndem si yàlla Thione Seck noonu la woon àdduna moo mel noonu àdduna mooy woy nit ki moyen de communication la bi nga xamante ne bi euh, dara amul ay sabar lañ daan utiliser di communiquer en Afrique l'Afrique tradition orale la ñu am kon lépp lu nekk ci yow rek da nga koy génne nga woy ko waaye woy wi ki ko fent ngay wëri laaj ko li tax mu woy lii mais man dama koy dugal ci contexte la mu daan woy rek la woy la mu daan woy muy neex wàññi troisième mandat waxuñu wàcc cherté de vie beeg yooyu ah xam nga nag artiste bu nekk degré d'engagement moom la concerné waaw danga ko koy laaj boo ko gisee wala nga dajeeg moom nga ne ko waxal ci gis ko moom naa ko sa loxo loolu dama koy lijjanti ngeen def interview bu ne muut mu waxal la lépp waaye wan mi càmm am dem ak bokkar boobu ma am càmm waaye sama yoon nekk ku tëdd néegam woyam génn ko mu bëgg maa wax loo ci woy bi noo xale bu jigéen bii nag bàyyi ma sama yooy waa mbirum Wally Seck moom loo ci xam sa xarit la sa sa doom la déet mbiram ci jàmm mais Kebs nag li ngay daw mi ngi bëgg bari fii amul amul xuloo amul xeex lépp dañ koy waxtaan bàyyi faal maa rek eh, waaw mais déedéet xam <laughs> doo fa egg Eh, non non gis nañu <laughs> kenn du fuyee kenn du màcc léegi yi non dañ ko gis euh, fan yi ñuy comme ni ñu ko waxee ñenn ñi entre parenthèses dañ dañuy acharné wu ci kawam mm-hmm. parce que port vestimentaire am euh, yi nga xam ne mu ngi koy utiliser ñu naan euh, borom ñaari turle ak yooyu sax ñu gis ne ku si nekk yaa ngi am conseil bi nga koy jox ak yooyu ñu gis ne nag il est un peu par rapport ak situation boobu gis nga Wally yaay la may woowee parce que boo ko demoon laaj interview nga ne ko sa première télé yi kan la woon ak nan la woon sama doom la xam nga waali mënuma koy jur waaye yaay la may woowee li tax loolu nag relation bu particulière bu ñu am moo tax mu nekk doomu nit ku baax xamaluma ko dara lu ñaaw damay wax rek te yàlla tax waali sama est-ce que xam nga ne sama premier sama émission bu mu def ak man fa la njëkk a toogee ne ma man duma borom ñaari tur yi Sénégal c'est dommage que ñu archiver mais waral wëral 24 heures ak waali Seck sama émission kon pour te dire que lii coow li du tey ci la njëkk a toogee ne ma man duma borom ñaari tur te ñaaree booy xool borom ñaari tur yi du ñu toog di tudd moo boobu man duma diw duma góor jigéen ah bëriwul ñu koy def de euh, li ñu koy waxal nag man dama ne ko euh, li ma ko mën a jox xëy na tuuti naa trop pour naan dama koy conseiller yàgg nañoo liggéey participer naa lu ndaw lu ma mën ci carrière am euh, au départ mu nekk koo xam ne tamit ñafe na ba am woy ci réew mi te yàlla nag mooy xool biddéewam mu di ko def nu ko nu ko neex mu nekk ci xolu xale yi mais benn conseil rek la laa koy laa koy jox na xoolaat bu baax euh, nan lay doxalee nan lay doxalee nag amul dara lu doxal loo xam ne doxal na ko muy lu ñaaw mais boo amee yenn tur yi am fu sa tur egg Sénégal yëpp bëgg la xale yi bëgg la mag ñi bëgg la ndaw ñi bëgg la Sénégal dafa am ay <laughs> du yombee noonu il faut nga xool nan ngay def te succès yombul pour gérer ko il faut nga xool nan ngay def pour maintenir la cap parce que Sénégal nag mooy dëkk boo xam ne fii rek moo am bu teraanga yokkoon noonu yokku phrase boobu amul ci beneen réew bu teraanga yokk te loolu warul am nit du lekk lu dul wërsëgam ci kaw suuf waali baax laa xam ci moom mën a dimbali ay doomu aadama laa xam ci moom Sénégal nag dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku valeur la boo xam ne du lépp lañuy ñuy accepté dañoo am imaan am lu ñu yare am loo xamante ne nii dañ koo dañ koo judduwaale màggaale ko mu am mag ñu bari ñoo xam ne dañ fee tëdd kon mag ñu bëri ñoo ñu fi tëdd dañ leen war di wormaal moo yooyu lenn rek moo ma métti ci ci problème bi yëpp mooy que ñi nga xam ne moom la ñuy wax naan mooy LGBT yi réussir nañ seen communication parce que foo dugg seen drapeau ngay gis Sénégal ña ko xamuloon xam nañ ko xale yi mag ñi ndaw ñi et je pense que am na lu gën a am importance mooy li ma la wax sànq Sénégal nañu bàyyi kenn moomul kenn nag ku ne am nga sa liberté nañuy gën a seet li gën a amal yitte dëkk bi ñu ciy gën di dox di ci gën di wax sàmm jikko yi gaa ci la bokk ah ndax nit ku nekk boo sañoon da ngay jur doom ju baax mu nekk ci lu baax mais àdduna loo gis dafa am façon dafa am façon buñ koy defee nañu bàyyi di ŋàññ nit ñi nañu bàyyi nit ñi ñuy saaga nañu bàyyi nit ñi ñuy toroxal Sénégal dafa changé léegi xàmmeetuma ko xàmmeetuma ko nit mun nga régler problème te du egg ci yenn violence yi violence dafa bëri Sénégal léegi ñaari fan ñett yoo toog te violence dafa bëri façon violence verbale am na violence physique am na te yii yëpp moo koy engendrer lépp loo xamante ne euh, avancé na ci àdduna rek consensus moo koy joxe ak waxtaan nañu dal waali xale la boo xamante ne dafa nekk ci yoon nañ ko ñaanal mu gën a dem ci kanam te boo amee loo koy wax ñu woo ko yedd ko mais pas publiquement ngay toroxal nit Sénégal nañ bàyyi toroxal doomu aadama nañu bàyyi wuññi sutura nit nit ki kenn nekku fi nit koo xamante ne euh, yonent nga wala wàlliw nga kenn ku nekk am na loo xam ne bu ñu taaloon làmp yi tey mu garaaw lool ci yow te ñoom ñooñu loolu am ñoom ñooy làqatu di nekk ci clavier yi di xas doomu aadama yi xaste baaxul tey toroxal gor ñaata doomu aadama lañ fi jël tuumaal leen dugal leen ci kaso ñu génn génn àdduna doomu aadama yàlla lu mu sàkk doomu aadama la ci gën a fonk kon nañu wormaal suñu moroom mbubb mi nga sol ba mu ëpp la bul ko solal sa nawle loo xam ne yéene woo ko sa bopp bul koy yéene doomu aadama nañu avancé kenn ku nekk lii sa wërsëg di nga ko lekk nañu bàyyi puusal kii toog loolu amul amul amul njëriñ ku ne li nga war a lekk ngay lekk waali mi ngi fi yeneen woykat yaa ngi fi ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ndax nag euh, séentu asamaan jarul buuxe ku ne la nga am da nga ko jël lekk ko foo taxaw di nga séen mais lenn daal laay wax ci sama xalaat bu gàtt joxew ma kenn leçon nag waaw na leer naañ leçon joxuma ko kenn ndax duma kenn bay joxe leçon mais li ma mën a wax daal mooy Sénégal dëkku valeur la dëkk la boo xamante ne bii euh, ñi fi tëdd ak ñi fi liggéey dañoo am lu kenn amut euh, donc loolu nañ ko sàmm ba mu mun nax saay nañu gëm suñu bopp fonk suñu bopp te lu doonul suñu culture buñ ko def ndax nag mbir yooyu moom du suñu culture du suñu aada bokkul ci ñun te li nga xam ne fa la ñu jokk bugguñu ko donc euh, nañu xool nan la ñuy def rek ba rafetal mbir yi daal man daal na lépp rafet rek waaw waaw boo toogee nag waxoo lii day mel ne dangaa naafeq donc il faut nga expliquer wax ñaari côté yëpp lan nga xam ne moom moo ci gën a am solo yaa ngi may bëri loo wax nag te waxuma képp nag wax ji na solo man li ngay wax sama yaram sax mu ngi daw li nga wax yëpp dëgg la euh, déggal boobu poobar damay poobar noonu nee na bi ba may ñëw dafa am kenn ku moo nekk képp ci am laay dem jëli mu ne ma la yaa ngi dem ci ku am xaalis macha allah léegi mu ngi ak ay boutique business yeeg yooyu lan law la sama sama law la mën a mën a jara jara <laughs> fàtti lan ma cat tubaarkàlla macha allah xale bu jigéen bi lan la <laughs> mbaa du dara bu dee dara mbaa du yàgg <laughs> tubaar fa kàlla macha allah. demee noonu. non du business sax euh, en fait dama ubbi boutique boutique euh, boo xamante ne bii mi ngi nekk Sacré Cœur euh, boutique bi normal na nag ma ubbi ko kuy liggéey depuis ñaata at. il faut ma am beneen activité nag boo xamante ne bii comme ni ma la ko waxee sànq rek euh, boutique gu jigéen la boo xamante ne tout ce qui concerne la femme maanaam mu jëm ci wàllu taar xam nga Sénégal ñu bari dañuy diw xeesal boo bàyyee pour defar sa yaram waaw day xaw a yàqu nga réparé ko mi ngi nii gis nga rek ma <laughs> ni nga ma xoolee nii <laughs> am na tam lu lay xeeñ non waaw mi ngi xeeñ foo romb ñu ne la loo tuuroo yooyu yëpp foofu la dem ca boutique noonu jigéen la daal foog waa Dakar yëfu ak affaire góor tamit lépp a ngi ci biir am na yoo xam ne kenn du ko wax ci caméra waa mais boutique la boo xam ne ku fa dem di nga bëgg sa kër dina neex lépp dina baax continent yëpp laa wër nag ngir indil leen loo xam ne nii mësta am ay collagène nag yu nekk xanaa xooloo rek waa kay waa kay ay collagène nag lu nekk nga fa waaye li gën a am solo mooy euh, te pare euh, damay defaxaale ay produits yoo xam ne c'est euh, bio fait maison mm-hmm. xam nga lépp lu ñuy lekk day jëm ci yaram donc produits yi ñu ñuy jaay di ñu nax yëpp moom la jël yu naturel yi defar ko defaat ko ci ay paquet indil ñu ko te ñun li ñu am fii dafa dafa doy waar ñun ñu ngeeg lu ne nebedaay rek muy euh, nebedaay bi rek li ci nekk moom waay boo ko defee saa bu bàyyi àdduna lépp a ngi ci biir huile yeeg yëpp beneen temps la ah. xam naa dinañ ci jaar alors Kebs Pop bu yàggee ñu jaar service commercial da ba amul duñu dóor alors Kebs tey bu amoon <laughs> bu fekkoon ne tey am nga conseil boo xam ne yaa ngi koy jox à la jeune génération lan lay doon. Euh, conseil à la jeune génération bi. xam ne dañu dugg ci audiovisuel rek. audiovisuel ah c'est un métier très noble métier bu noble la mais ba léegi dafa am amalgame bu ci am journaliste animateur présentatrice. xam nga defuñu différence bi ñu la gisee nga micro rek ñu ne journaliste nga donc euh, métier la boo xam ne kenn moomu ko ah lu yaatu la ku ci bëgg a dugg rek mën nga ci dugg tey tamit euh, boo ci duggee ba pare nag li nga xam ne moom moo ci nekk rek mooy euh, jàng du weesu nga def formation te jàng du jàng bi nga xam ne dangay toog ci école rek di jàng ah da ngay dem ci nit ñi nga xam ne peut-être am nañ ci tuuti luñ ci xam ñu di la wan waaye nit ki tam boo bëggee dara ngay def recherche surtout ñu bañ a privilégié rek ñëw euh, dama bëgg a génn tele wala dama bëgg a feeñ naa dem ñu solal ma ma defar sama bopp mag yow ñëw toog tu te mets à la place du téléspectateur wala de l'internaute bi nga xam ne moom mooy xool li nga xam ne moom la bëgg dégg wala moom la bëgg xam yow yaa ko ko mën a wax kon mënoo toog yow di def émission di ko def pour sa bopp looloo tax je préfère génn benn yoon wax lu am fulla que di génn chaque jour pour paraître ak di wër sensationnel donc su ma amee lu ma leen di wax loolu laa leen di wax ba noppi képp ku ci nekk jigéen nga gëm sa bopp te xam ne euh, bu la kenn xoqatal te bu la kenn teg yenn pression yi wala ñu lay def harcèlement xam nga loolu yëpp xam nañ ko ci wala nga bëgg dara wala nga bëgg feeñ ba tax nga am noo doxalee loo xam ne bu ëllëgee di nga wér jooy dangaa war di génn télé dangaa war di wax ci euh, euh, inter site bi donc da siggi xool doomu aadama yi boo siggee xool leen ça veut dire que amul fenn foo jaar pour am li nga am tubaarkàlla macha allah kon xale yi nga xam ne ñoo ko bëgg boo gëmee sa bopp rek euh, mu dëggu yàlla sunu borom dalay jàppale nit dara jomb ko jigéen ñi xale yu jigéen ñi laay waxal loo bëgg mën nga koo am te du tax nga jaar fenn bu la kenn xoqatal avancé nga dem ne lii laa bëgg jublu ci jàng ko yàlla sunu borom moom mooy ñëw lu nit bëgg rek nañ ko bàyyi mu def ko mais nag nga am ci fulla am ci personnalité te du tax nga nekk koo xam ne dangaa pànk wala dangaa bëri histoire wala dara mais dangay am personnalité personnalité dafa am solo ndax tele image la nga sàmm sa image ba boo génnee duñ ne cim loolu dafa am importance kon sama rakk yi ndaw yi sama doom yi ñi nga xam ne bëgg nañu génn tele li ma leen di wax rek créneau bi mooy gëm sa bopp bu la kenn xoqatal ne kaay boo bëggee génn ma def la lii ak wala ñu lay dugal ci ay ruq bul ko nangu ndax boo toogee da ngaa war a jàkkaarlook télé bi lépp leer nga jàkkaarloo di xool kon waroon nangu yenn yi ndax nag boo gëmee sa bopp rek yàlla jàppale yàllaa fi ne dëgg la kontaan nañu sa dernier mot lan lay doon. maa la gën a kontaana maa la gën a kontaan ah, euh, Dakar Buzz maa ngi leen di encourager bu baax parce que nag diversité mooy def richesse ah. moom laa lay waat ci lëg ma njëkkoon a laaj rek parce que bu bu doon man rek maa fi ne ba tey di génn télé kon richesse bi duñ ko am il faut nit ñi di diversifier ñu teg ñëpp ku ne tànn ka la saf nga seetaan ko loolu moom mooy li am solo foog nga nekk fi ñeneen ak ñeneen nekk fi kon nag maa ngi leen di remercier di wax déwénati à tout le Sénégal ah, fin fond du Sénégal déwénati à toute l'Afrique déwénati également ah ñi nga xamante ne ñooy doomu Sénégal yi jóge fii dem bitim réew ñi nekk Mauritanie nekk Gambie nekk fu ñu ne ndax sénégalais yi ñi ngi fu nekk ci àdduna bi muy guddi muy naaj muy taw lépp lu mën a xew Séné ñoom dañuy yónnee seen depas wala ñu yónnee seen xaalis ba pare tëdd duñu reer ñu ci bëri xam nga leen tey tabaski bi taluñu ko sax ñi ngi liggéey kon nañ leen gën a euh, encouragé ci li ñuy def ndax waaw góor day yokk ngóora ba noppitam di participer ci li nga xam ne moom moo di dëkk bi li ñuy apporter au Sénégal aide publique aide au développement sax apporté wu ko plus de 1000 milliards ba noppi seen bopp dañ koy fàtte di defal waa Sénégal kon ñu mel noonu tey jii bu bis yi amee bu ñu sañoon fekkee xar yeeg yooyu waaye maa ngi naan leen déwénati à à ñoom ñoom ñëpp déwénati à yéen itam ak képp koo xam ne rek bëgg nga ma safoo ma te nag euh, du jeex ah, ak ñi may ñaanal te xamuma leen yal na yàlla sàmm leen yow it yal na yàlla yokku la may la li nga xam ne lu sut sa njot ci sa carrière ah ngay dem di toj àdduna di ko tukkal loolu laa lay. tànk rek laa bëgg. waaw kay da damay damay da koy romb sax di dem <laughs> da nga koy koy romb sax di dem tubaarkàlla ndax nag eh, wax dëgg yàlla question yi pertinente na te ni nga koy posé noonu la. bi daal waxul eh, bay laaj ko borom bato ba. <laughs> bato duñ ko laaj borom bato du man mii lañ koy laaj ndax fekkeew ma bato bàyyi ma Youssou Ndour ku baax la Ndoura Waari gaan sama patron boobu yàlla na jàmmam yàgg Alaaji Njaay sama patron bi yàlla na jàmmam yàgg waaye nag fi ma nekk laay gën a waxal reetaanal bu baax <laughs> ndax nag TFM laa bokk te nee naa la sànq au départ boo nekkee ci gaal gaal ga nekk war a suux doon ne damay sauver sama mbuus TFM lu ñu nekk ma nekk ci ak ñoom nag ndax ànd ak ngor ndax falaa nekk te weer bu dee ñoo may fay waaye weer bu dee ñoo may fay itam du tere ma ànd ak sama personnalité ak sama ngor waaye nag nit ki fa nga nekk nag ah da da nga leen di waxal lu baax man nag nee naa la duma tagg tagguma kenn du ma wax lu ma gëmut waaye nit mënul di la fay par weer nga toog naan da nga koy waxal loo xam ne nii du loolu te nekkul ci moom sax nag xamaluma ko ko jàpp na njàmburam coow li bëri na génn nañ yàq ko lu ne mu ne tekk waaw bato yow de. Kebs gërëm nañ la mbégte la woon pour ñu naa ñu ànd ak yéen ci spécial ndewenal ci biir Dakar Buzz waxtaan bi neex na teeru bi itam neex na xam nañu ne bésu julli la sonn nga lool waaye tamit nag wax dëgg yàlla lu muy xat-xat yëpp xajal nga ñu ci ñu ngi lay sant di la gërëm di sant bu baax ñi nga xam ñu ngi seetaan fii ci biir réew ci bitim réew rawatina yi nga xam ne ñoo nekk ca diaspora bi sant nañu leen bu baax gërëm leen dig daje rek ci kanam ak beneen daanaan